Dakar it fi ne ña nga ànd ci njàng mi ak njàngu xasida ndax daayira bi noonu la baaxee ndax ku mënta ñëw da ngay woo sa mbooloo daje foofa daal ni bis bi kat am na bis sàngam kon ñoom it dañuy daje def seen lim jë jombul bala ñu fi jóge mën naa bu fekkee li muy daje nan dina leen ko andil bu daje wuti saa bu daje bu fe soobee dina fexe ba sëñ galas mi jot ci insha allah di jot ci lim bi wala secrétaire général sëñ Cheikh Touré bi nga xam ne lépp xasida ahlu xasida moo koy bind daayira bii nag doonul ahlu moo jiite daayira bi biñ demee ci jamono sëñ saaliw bi demee war koo jébbale nag ñu yàlla doo ko sëñ saaliw ñibbi àjjana ñu jébbal ko alaaji baara alaaji baara moo nu tudde ahlul xasida bi mu na ko tuddee nag àdduna yëpp maasata ni daayira bi tudde ahlul xasida moom ci daayira bi leen ko njëkk a tudde boo xam ni ki fi nekk sëñ tubaa ndax ah euh, doon sëñ tubaa mu yombut waaye ki fi nekk sëñ tubaa boobu mooy xalifa sëñ tubaa moo ñu ko tuddee woon mooy ahlul xasida moo tax doxuñu ci caaxaan doxuñ ci lenn waaye bis bi dañoo xool xam ni sëriñ bee ngi ci xam ne bisub boo xam ne ñëpp war na ci ànd moo tax ñëw ànd koog yéen te incha allah bu ngeen ko doon def faneen ci baneen gox itam fas yéen yéen a ñëw ànd koog yéen incha allah ñu ngi jégalu bu baax xam naa tisbaar ji dafa jige waaye na ngeen xam ne daal ahlu xasida jox nañ loxo lii ñu fi jàng ci libit yëpp nag yéene nañ mboolem ñi nga xam ne ñoo taxawal lii ak mboolem ñun ko àndal ñëpp suñu borom guddal seenu fan te wéral leen te kartana leen ba fin bëgg a yóbbu mbooloo mi suñu borom dëgale ba yóbbu ko ban sëkk wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu barke alquran lépp lu ngeen ci gis rek ak a doon na fànn bu mën doon bu ci génne woon lépp ñu def moom mii kon dara loolu ci des ñu ngi leen ñu ngi leen di seedal ak cant buñ ko sant bu baax ak gërëm buñ ko gërëm bu baax ci turu Miftah mën naa loo soon ñëpp a koy sant ñëpp a koy gërëm ndax bis bii bu nu bàyyee quartier yëpp man dugg ma ci quartier bii xañ na jege naa ko Ousmane mii ma nga dëkk ci biir Ndaam Abdoulaye Fall ma nga dëkk fële ca Darou Khoudoss ñuy fii suñu xel nag Serigne Cheikh Touré ko waral ndax bu dul woon moom kon kenn ko la xam nii foo koy taxawal te jige woon ne ngànte ba dëggoo fa am na koo wéeru moo tax na ñeme ko kon nag kàddu yi li war a wax ñun dañu koy jox Serigne Cheikh mu sant leen te gërëm leen. barke borom Tuubaa suñu Fallou da ngaa baax rek waaye liñ bëgg a wax lépp mën nga ko wax bis bi ñoom suñu borom da leen cee defal tawfeex yu bëree bëri. ndax ban ko xalaatee rek dañ ne li ñuy jiital mooy sëriñ bi gënoon a te gën koo bëgg mooy alxuraan ak xasida fas na looy yéene itam di tàmbalee ci suba gi ba ci tisbaar alxuraan rek lañuy jàng ak xasida moo waral ñoom ñi itam ginnaaw bi fi daara yi dajee jàng fi fukki kaamil ak ñaar benn jotaay ñoom ñuy ñëw jàngaat fi li ñuy xasida yu takk yëpp ñu jël jëlaat seen téléphone wootiwaat ci réseau yi xamal ne waa Miftahoul Mouna na bis bu ñu def na ñëpp jàng alxuraan xasida ngir ñu ñaanal leen ji ngërëmal sëñ bi waa leen ñi sàkku suñu borom jàpp na leen kon ñoom ñëw nañu ci teewaay yu bëree ñuy woo léegi am na yeneen buy ñëwaat ci jataay bi ñoom ñi la tànn ngir àndaat ak ñoom ñëw fii bi ñu ngi day ñëw ne kon man lañ fa nekkal waaye incha allah bu koy ñëw dinañ jokkoo ñu fas yéene ñu àndaat ci tànn bi ñu soog yàlla a xam nga a ñooy def foofu cant la ñoom dañoo def li war naa def lu war a def te si di dara ak si di maqaama di dolli ci liggéey bi ngeen bëgg a liggéeyal Sëñ Tuubaa ndax lii moom bu ci nekk rek yaa ngi dëgëral ko di mu fii ko salaay li sëriñ bi waxoon ne fii jamono yàlla may takk Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ba mu koy wax jàpp nañ ni ñu yëkkati xasida yi rek ak di ko jàng saa su mooy wax te ñoom jëm ni Sëñ Tuubaa boo leen di woon bi di ko sëñ Omar waxe kon noo leen di sant baax te di leen xam naa jotaay bi fii lañ ko yemale ci wàllu tur si day mel ni ñi nga xam ne ñoo war a defar barab bi ñoom it ñi ngi taxaw ngir defar ko ñi ngi sant tey gërëm wasalaamaaleykum